maa ngi tudd euh, Soxna Seynabou Ndiéguène euh, Diouf présidente de Diouf présidente du conseil d' administration du petit train de banlieue. ndajeem tey mi en fait euh, jigéenu Thiès yi tey dañoo daje woon zone yëpp dajaloo ñetti commune d' arrondissement yi pour pouvoir waxtaan si 15 ponk référendum yi. donc waxtaan ak jigéen yi ñaax leen ne leen non seulement dañoo war a commencer processus bi du début jusqu'à la fin mooy commencer dès à présent proximité yi et eggale ko le jour des élections taxaw en sentinelle le jour des élections du matin jusqu'au soir nañu taxaw génn nit ñi ñu dem voter ji pour que ñu am taux de participation bu gën a mag ak évidemment en passant par le oui massif au niveau de la région de Thiès. donc euh, te tamit boole ci tey dañoo profiter si occasion boobu tamit matériel euh, ay bale atelier yoo xam ne ministre de la femme poubelle ak ay tameeg yooyu ministre de la femme mayoon euh, les femmes euh, de la région ñu profiter de l'occasion pour distribuer waale leen ko ñoom ñu yóbbaale ko ci groupe bale yi xam ni ñun sunu euh, liggéey bi ci bëri nañoo sukkandiku ndax groupe bu bale boo gis ci koñ yi am nga au moins cent femmes derrière toi te dans chaque quartier jigéen ñooñu dañoo regroupé wu jàmbaar lool donc moo taxoon ñu woo leen ministre de la femme jàppale ñu Mariama Sarr pour ñu jox leen ko pour groupe bu la zone nord mais ñetti commune d'arrondissement yëpp pardon. suñu xel dal na. parce que ñun soo xoolul euh, su lu woon list parallèle bi zone nord ñun euh, gagné woon nañu donc parce que ñaari liste yi bañ ko boolee ñun ñaari liste APR yi dañoo dóor euh, loin Idrissa Seck suñu xel nag dal na parce que waa Thiès nag dañoo nangootul ku leen ji nax ndax président bu ñëw nga leen fal leen ko soo defee weer génn te doo am raison. Eh, Abdoulaye Wade dafa ne woon fal leen ko 2000 Thiès fal Abdoulaye Wade mu toog weer na bàyyi leen ñu bàyyi Macky Sall fii xam nañu meeting de clôture bi Idrissa taxaw ne waa Thiès voté leen ko ñu voté ko te Macky defu leen dara mu wëlbatiku naan bàyyi leen ñun nag Thiès dañoo sonn si jeu de yooyu boobu fi mu toll nii dañoo taxaw nguur gu ñëw ñu contrôle ko ñun ñoo Thiès nee nañu ñoo bañ dinañu jàppale le président Macky Sall ñun ñi ñoo ko fal dinañ ko jàppale ndax moom 15 points référendum yépp njëriñu askan wi rek la ci wax du problème mu euh, élection yi du élection élection boo xam ne pour askan wi la yoo xam ne quinze points yi ku ko ci liir ndax la preuve ñoom attaqué wu ñu benn yoon si quinze points yi li ñuy attaqué mooy si wax waxee tak piquet par la te xam nañu ñëpp constitution li muy namm ci dëkk looloo fay am ndax président c'est le garant des institutions. déedéet ñu ndax Idrissa Seck mënatul tiital kenn ku dem ba xam ni bu njëkk da nga daan am juróom-ñaari ministre yu daan fanaane Thiès nga duma wëlbatiku ren nga mujj làqatu si ginnaaw si la benn làqatu si 19 mouvement ak coalition pour mën a dëkku APR xam nga ni soo doon gaynde gaynde gu tax nga léegi wala gaynde gi màgget na fi mu nekk nii donc Idrissa moom xam na mënuñu yëngal. lan ngay dénk sama moromu jigéen sama ñi mooy ñu génn jóg ñoom ñépp takku comme ni ko jigéen ñi defee ndax ñépp xam ne ñu jigéen ñay fale ak jeunes yi donc ñu jóg la euh, commencé déjà commencé nañ ko gaa massification bi mais li ma ne ñu taxaw en sentinelle rek jour vote bi ku ci nekk génne sa euh, njaboot ñi nekk sa biir kër pour que ñu jéem a dem voté ji en masse lool la ñu bëgg voté ji la wii donc oui bi la waa bëgg Thiès yëpp jigéen ñëpp approprié wu ko dem voté ko te joxe nañu serment parce que femme yi ngeen gis fii tey femme bu nekk femme leader nga am nga sa ginnaaw au moins deux cent euh, femmes derrière toi donc loolu la ñu bëgg pour euh, ñu jàppale ci jigéenu Thiès yi jàppale ci président marché pour réforme yi am ak chantier yi mu am pour la région de Thiès mu mën ko eggale si jàmm ak salaam merci jullit yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant da nga ñëw tey ci siège u APR ñu nekk fi tey jii di réunir ñun femmes yi ñun soo gisee ñu topp ci président Macky Sall mooy que ni ba ñu nekkee Ndakaaru te Ablaye Wade ay nitam sànni woon lacrymogène ba ca Zawiya ba ñoom Macky Sall nekk ca Ndakaaru di di mars seen marche bu metti boobu sëñ Sidi Makhtar Mbacke da leen ne woon jugee leen foofu yéen ku ci nangu na nga fa jugee di nga gañ réew mi ku ci bañ yow yaa xam ku nangu nag. yàlla dina la jox réew mi Macky Sall doo nga ca nangu woon génn yàlla jox ko tey réew mi ñoom ña bañoon ña nga foofu ñoo fa nekk di rayante ba léegi Macky Sall nag lii muy wut ci doomu aadama yi da koy am te dinañ ko woteel wii bu saf-saf ñun ñëpp ñun xale ji ñun jigéenu cees ñëpp dinañ ko ko woteel ak Sénégal yëpp wasalaam Idrissa Seck mënuñoo tiital ñun tiituñu benn yoon Idrissa Seck tiituñu benn yoon te duñu tiital ndax yàlla wii rek la wax nit ku la nee ndax bëgg nga say bëgg nga sa sëriñ danga naan waaw dooni déedéet kon ñun waaw rek la ñu wax te Idrissa Seck mënuñoo tiital. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nekk sa tur ak sa sant donc ñu koy démarré li ñu jot a wax léegi am na solo waaye ngeen permettre ma remercier suñu ministre suñu ministre de tutelle muy Mariama Sarr parce que tey moo waral dajaloo bi ñu dajale si wax sànq femmes yu bëri jot nañu tudd ay quelques points soulevé ay points mais man dama bëgg a laaj liñ naan lan mooy laïcité lan mooy signification laïcité parce que boo ko xoolee tey opposition bi le front du non le front du non ñu sukkandiku pour yàq la deru le président Macky Sall donc mooy wax ne la laïcité signifie tout simplement la liberté des religions la liberté des religions defe naa ne ñëpp xam nañ mooy def naa ne alxuraan ñu koy wax ci euh, alxuraan ci surat 109 ñu naan les mécréants ñu ngi siy wax naan à vous votre religion à moi la la mienne lakum diinukum waliya diini ma defe naa ne bu ñu waxee sooxu laïcité mooy ku nekk da nga mën a parce que laïcité mi ngi commencé si comme ni ma koy doon waxee la première c'est une c'est la première loi constitutionnelle institutionnelle en islam. La première loi institutionnelle en islam se matérialise, matérialise dans le traité d'Odebia. Dans le traité d'Odebia où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, acculé par les païens, mais a signalé en sa qualité de Mohammed, fils de Abdallah, en lieu et place de prophète de Dieu. laïcité bi mu ngi commencé si jamono yi Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que bu ñuy wax alxuraan moom moo ko fi wàcce yàlla jaarale ko si loxo ba mu bëggee dem màkk ànd ak waa màkk dem aji paye ya fa nekkoon yéeféer fa nekkoon dañ ko ne pacte bi na ko signé ba pare ba yónnente suñu borom ba mu ko defee paye yi dañ dellu yi fi ne ko amul Mohamed bu yónnente suñu borom Mohamed bu Abdallah parce que ñëpp xam nañ ne arab yi amuñu woon sant arab yi daaw ñu am sant dañ dakkantal si seen tuuri waajur donc si la Mohamed daal di changé ne moom mii rasulullah bu yónnee bu bu bu suñu borom bi ça la changé affaire bi. ne que laay laïcité foofu la mais man damay interpellé Idrissa Seck rek mooy fii mooy dama au nom de la vérité qu'il sait devrait tenir un autre langage car Dieu menace de représailles ceux qui dissimulent la vérité qu'ils savent en sa qualité de chef patenté du fond du Nord Idrissa Seck encore une fois de plus a manqué d'éthique pour édifier ses camarades focus sur une question qu'il est censé comprendre. Il s'agit de la fameuse la fameuse controverse sur la laïcité dont l'opposition à la personne du président Macky Sall compte contrefaire son cheval de bataille pour installer la chienlit au Sénégal la chienlit maanaam muy bañante bi xastante bi ñàkk bëggante bi Idrissa Seck dama koy waxaat dama naan Idrissa Seck posture bi seen est l' ultime imposture d' Idrissa Seck parce que Idrissa Seck bu taxawee dafa jàng alxuraan Idrissa Seck buy taxaw di woote si tuuru yàlla avec ses sourates interminables bu taxawee tey xam li ñuy wax si laïcité mu taxaw di tiiñal le président Macky Sall ne ko yaa ngi doole góor jigéen ñi da nga fa bëgg a jigéen borom ñaari tuuri kaw Idrissa Seck boo tabalee Idrissa Seck a Seck naa feex xela parce que jàng na alxuraan dafa naa madame Diop dam toog di wax ñu wax waxu lay sëb waxu lay bi ñuy wax borom ñaari tuuri olof Njaay dafa ne wax ju ñaaw jëkkul dëkkul fa mu jëm fa mu jugee la cosaanam président Macky Sall di doomu jullit di sénégalais pur souche ndayam di jullit bàyyam di jullit defe naa ne lépp loo xamante ne luy ñaawal askan bi doomu la président de la République Idrissa Seck li ma koy xamal mooy Oui, la destin, la destinée présidentielle du président de la République est déjà inscrite sur la table invariable du Seigneur yàlla mooy fal yàlla mooy folli nguur wàlliyu du domaine doomu aadama domaine suñu borom la moo tax nit nga war a dalal sa xol féexal sa xol féexal sa xol añaan baaxul tey lu la sa morom ëppale nga añaani ko ko tey lu la sa morom tànn nga ne déedéet Macky Sall ba nga koy fal 65 pour cent yi taxawuloon di xaste taxawul di di di jiñ kenn lu bon dafa bi ñefeel boppam xeexal boppam kon tey jii il faudra incha allah à la tête de ce pays le temps que voudra Dieu kon ma di leen wax laïcité fii gisuma fi lu ñaaw lu tax laïcité si jamonoy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam la tàmbale woon donc ma di leen gërëm di leen lancer encore une fois di leen wax que votons les massivement di leen wax surtout yéen femmes yi ma àndal yéen femme ay dina Fall donc yéen ñi def possibilité te tey jii ñun dafa ngeen may ma profité lancé benn appel message tey day euh, dafa mu ñëpp am ñu commencé profité incha allah maa ngi leen di